à autrui yàq nit loolu la loolu pour ñun internet pour loolu lañ ko war a doyee quoi. nos premiers barils de pétrole. def fi ñoo waxee ni ñu nga Europe. suñu ay premiers barils de pétrole. il faut que je sais pas moi. ah vraiment moom daañu tontu. sama dernier sens. lan nga jàpp ni suñu autorité yi moom la ñuy xaar dem ci Anita Diop ak jaloore yi nga xamante ni moom Aliou gindi ñu. kuy non li ma li ma li ma jàpp c'est ça <laughs> li ma jàpp mooy euh, euh, euh, mooy li ma daan xeex rek mooy dëgg dafa war di feeñ et il faut de la transparence dafa am opposition boo xam ne dafa nekkoon ci réew mi pasan doo toog nga jàkkaarloog yow bul dem toogal non yow soo yoon nekk ci loolu déglu rek du yow ma posé question. est-ce que doo Anita. waaw mun na nekk de waaye laaj laaj am na leen lu mu laaj dinaa wax wax bi mu yegg de. Hmm. waaw ah, parce que xam nga ni xam nga fi ma war a mën a jëm noonu. xam naa loo ma tax nga may dagg nii mais bul waxat ci bàyyil bàyyil ma yeggali ba mu mujjee na yëpp dégg mm. waaw yooyu yooyu daf fi war a jeex mm. dama ne Anita dañu war a xam kan la bu dee dañu war a daf ay enquête daf xam daf ko concerné dañu war a xam Anita kan la waaye bu ñu yem ci Anita kese nañu dem jot na ñu xool ki doon saaga Aliou Sow aussi naan góor jigéen la naan jabaram daf ko fekk jabaram tubaabam daf ko fekk ak ak ak euh, loolu nu mu tudd ak euh, ak góor moo tax mu bàyyi ko. jot nag waaw jot na mooy kooku di wax noonu di changé baat bi nu tudd. kii di wax te baat bi bokkul kan la kooku. ci ah, xalaat TV xalaat. xalaat TV demee ngeen laaj ci kooku damaa jum xalaat TV. xalaat xalaat daf borom xam-xam. non ma rek non bul kii bu ma coupé waxuma dara amul xool sama yoon nekkut ndax am na xam wala il faut pas me couper. il faut arrêter bu ma bu ma kenn coupé. Mm-hmm. comme ni leen bàyyi ngeen wax 5 7 10 minutes bàyyi leen ma wax. Mm-hmm. dégg mm-hmm. bu ma coupé. dama ne ni wax ci Anita laa wax kan la bu fekkee ni enquête dafa laaj pour ñu xam kan mooy Anita état ci boppam dina ko xam te loolu avec insistance te dañu war a xam kan mooy Anita bu fekkee ni dafa am luñ ko war a teg ñu teg ko comme ay daan nañ ko wër teg ko ay daan waaye bu ñu am foofu. xalaat TV ki fa nekk di wax di yàq ku nekk lu nekk man d'abord personnellement te li mu wax yëpp yàlla xam ne dara du ci dëgg nañu dem aussi ñu ñu wax kan moo doon wax ay ñoom clé euh, nekk ci États-Unis taxaw ci télé mu ne moom Aliou Sow góor jigéen la ak yeneen yoo xam ne rus naa ko sax di ko wax ci télé loo xam ne bokkul dara ak wax sa xalaat ci àdduna ak Sénégal kooku du wax loolu. kooku noonu du wax loolu Pape Moussa kooku du wax loolu keneen du ko wax Pape Assane man la koy wax parce que àndul ñu ak li may wax neexu leen kon Anita ok dañu war a xam kan la man yooyu rek laay xeex dëgg muy leer parce que man lu lëndëm bëgguma ko lu lëndëm moo tax am amnistie bi ma bëgg mu leer nañ te yàgg naa ko yuuxu kon Anita na leer. xalaat TV kii saaga foofu yàq ku nekk naka sudul loolu fii ci réew mi wax leen ci kooku aussi bu ñu am foofu nañ ko wax na leer nañ parce que loolu moo am ci réew mi saagante yàqante waxante nit lu ñaaw man Anita su ma ko xamoon dama koy génne j'en ferai une exclusivité dans mon quotidien maa ko moom man kese mandat bu ma neexee lu ma neex def ci bu tëjee baax na essayé naa def naa dara pour sama réew kon tew ma leen compté wu ma kenn compté wu ma Macky Sall compté wu ma Ousmane Sonko compté wu ma kenn faale ma leen donc man ku ma joxoon Anita man ma génnee ko man maa koy génnee waaye dëgg laa bëgg dama bëgg dëkk bi ñuy waxante dëgg di wan lépp képp ku fi def ay ñawteef ñu wane ko képp ku fi wax lu dul dëgg képp ku fa tooñ daamu doomu jàmbur ñu génne ko leeral ko ci réew mi bu kenn yam ci Anita génne leen Anita. bu dee bëgg ngeen ko xam xam ngeen ko ki foto Ousmane Sonko xam ngeen ko xam ngeen kan mooy Anita bu dee nit la dina leer bu dee groupe la dina leer kenn mënul taxaw fi Sénégal naan ay ay c'est un groupe de de lan. de malfaiteur loolu yàlla xam man du wax ay malfaiteur la ñu parce que mënu ma ko du wax sax xalaat TV ay malfaiteur lañ du ma ko wax donte da jàq nañ ma naka noonu parce que du noonu laa gisee àdduna donte nag mën na ma metti te man mi sax taxul may wax sama njaboot gi la ak ñi nga xam ne bëgg nañ ma ci àdduna ak fii ci réew mi kon duñu ay groupe de malfaiteurs kenn xamul ñan lañu mbay nañ ñu ko leeral waaye rek dañ ci joxe suy xalaat te maanu ci waaye boo nee groupe ay malfaiteurs lañu man su ma nee woon groupe groupe malfaiteur lañu mooy maanu ma ndax man mënumaa xam kan la ba tey ñi ko war a xam bés bu ñu ko leeralee ñu xam ndax groupe la de malfaiteur wala nit un malfaiteur simple la bu boobaa liñ ko war a yàq li war a dal ci moom comme ndodd mu dal ci kawam ku fi wax leneen man gëm naa ni lii rek kay dëgg. bu ñu paree ñu dem ci xalaat TV kenn tax ñu dem ci xalaat TV du man kese la yàq naka su noonu du man kese la tooñ am na tooñ tooñ na ay boroomi kër yi boroomi kër boroomi kër nañu dem seeti kan la buñ ko bëggee xam dinañ xam kan la ku dem bay bëgg di changer baatam bëggul wane boppam kookoo gën a gaaw kooku mook Anita benn lañ. ndax jàppee nga leen menace. mais c'est une menace mais kooku noonu def na fi lu nekk te du ñoom ñaar kese de boobu dafa ñëw sama xel parce que mm, concerné ma et gis naa ne concerné na ñu bari. muy Anita muy xalaat TV boobu waa jooju nga xam ne moom wane bu tax wanewul kanam kenn dafa mës a toog fii waxtaana ci lu tax lu ñu wane xalaat TV kooku di wax ay doomu jàmbur yu bon même bu fekkee ni ki muy wax lu bon yéen àndu ak moom ngeen wax ko sax ndax ñu xam ne fii kenn deful xaj ak seen man xam nga on m'a dit beaucoup de pour ma porter plainte Azoura saaga na ma fii menacé na ma mais porter plainte pour lan dégg naa ay ñoom ñeneen ñi parce que garaawul lii rek moo tax su ma waxul woon fii kenn du ma fi yàpp ba di ma wax lii kon xëy na ñun ñëpp ku nekk dafa am loolu tax a jóg moo tax nga ñëw taxaw di wax sa sa xalaat ci réew mi rek mais ñoom dañu xamul dañu xamul parce que ñooñu ñooñu ñi ñuy défendre ñoom ñooñu gën a xam ñun ñoom ñooñu gën a xam te amaana sax ñun ñuy sóoraale te ñoom xamuñu ko de te ñoom kenn faa ma ne waxaat ñooñu kenn soxlawu leen ñooñu di saara noonu kenn soxlawu leen xam nga lan la xaar hmm. ñu ñëw taxaw bis jot rek comme li daal xale bële nu mu tudd euh, xale bi nekk seen TV. asma waaw. dinañ ci ñëw waaw. waaw dinañ ci ñëw après xam nga waaye il est intelligent lui lui le patron là il est intelligent il sait très ce qu'il fait waaw dinañ ci ñëw après mais dama ne rek. bu ñu dellu ci mbir loolu comme dinañ ci ñëw du ci wax. nañ ci ñëwaat waxtaan mais je vous dis que ni mënoon toog fi di wax Anita te duñu wax ñeneen ñi fi xew yépp parce que day mel comme Anita chargé. Anita dañu xam kan la dañu war a xam kan la te yàgg naa ko wax yàgg naa ko wax fii bi ñu wax Bassirou Diomaye Faye gëm na ni du nekk président du nekk candidat te lii la xalaat moo tax du nekk candidat parce que normalement boo xoolee logique u parti politique bu ñu dissoudre ak yu demee noonu foofu la ko teg waaye nag kooku waroon na mën a sóoraale ki wax loolu doon man waroon na sóoraale ni xëy na un président de la république fii dans ce pays là parce que moom moo bàyyi diw mu bokk parce que bu bëggul woon du bokk. Hmm. donc pour vous dire que ni rek ni euh, euh, affaire bi. bu ñuy wax bu ñu yem ci Anita kese. na nañuy wax xalaat TV ki doon saaga tamit koo kan la ak baatam boobu. ñaata nit ju bon lu bon lu bon la wax ci nit ñi. am na koo xam ne nee na mu ñu États-Unis nee na moom dafa ay cocktail molotov la doon jaay léegi nañuy seet cocktail molotov boo yu ñu déglu ma rek. Ah. booy yu ñu jàppoon ci cocktail molotov yi. ñaata la leen waa ji jox parce que waa ji nee na moo doon yónnee xaalisam ci ay pour ay xale pour yónnee leen pour ah ay dépensé na ci ay millions de ay millions de francs CFA ay centaines de milliers de de de de de de de de dollars yónnee ay cocktail molotov pour jàppale pour jaxase carte gi nee na moom moom de keneen ñi Anita yàq na de mais waxul mais kii moom dafa jàkkaarloog Sénégalais mu ne dafa jàkkaarloog Sénégalais yi xam nga la wax nee na tas na ay famille yàq ay diggante moom moo wax loolu te mi ngi ci jéggalu yàlla xëy na yàlla mën na ko jéggal waaye ñun nan la ñu war a def ak moom. kooku moo taxaw mu ne jël na ay centaines de milliers de francs CFA ou de milliards ou même de de xawma mais beaucoup d'argent plus presque un million de dollars moo ko wax ci gémmiñam def la dépenser ci ay lu kenn xamul d'accord naa waaye cocktail molotov yi mu doon jënd est-ce que yéen taxaw fi wax ko est-ce waa ji waru waxtaan ci moom ne kii li mu def du dëgg du yoon ñépp wax ko nag le premier ministre d'abord parce que c'est grave parce que ci turam kooku da nee na ay propagande am na xam booy ñu jàppale ñuy doon kii Euh, nu mu tuddu ci ci ay cocktail molotov mais boo yooyu na leen dem laaj na leen dem laaj nu mu demee boo yooyu anañu comme waa ji nee na moom moo ne xaalis pour ñu def ay jënd ay cocktail molotov waaye jooju mi ngi fi koo wax dara kenn musul waxtaanee ci moom comme ni ñuy waxtaanee Anita Diop Anita ay photo la def ak ay diffamation xëj na loolu yoon dina ko wax bés bu ñu leeralee kan mooy Anita waaye am na ñeneen ñoo xam ne ñoom dañ leen jàpp ci ay mbir ci ay cocktail molotov ci ay toj ay terre yëfu jàmbur lu ñëpp bokk euh, euh, ko doxu taxale c'est parce que ay nit ñoo ko yàq. ñooñu am na ñu si jàpp xaw ma ndax bàyyi na leen wala bàyyi ñu leen ñooñu ñan lañu ñi toj total yi ana ñu station total bokkul dara ak je ne suis pas d'accord parce que ay nit ñoo ne total France moo ko moom ay nit ñoo ne Auchan France moo ko moom ñu toj ay yëfu jàmm am ñoo xam ne liggéeyatuñu man xam naa koo xam ne euh, total bi nekk yaraax la doon liggéey bi ñu ko yàqee la pare am na koo xam ne mi ngi fii total bi nekk wetu Walfadjri dañu léppam la ñu yàq près de te c'est quelqu'un même qui voulait le changement da dul woon politique rek xamuñu sax ñoo yàq ñu ko ñooñu dañu ñooñu ñu jàpp loolu ci yooyu parce que am na ñu si jàpp ñooñu ñan lañu lañu waxtaan ci loolu. moo gën ñu wax Anita boo xam ne xamuñu ko. Hmm. Anita nag dañ si wax nañu ne. fexe leen ba génneel ñu kan mooy Anita. jaarale mbir yoon. waaye yeneen ñi aussi dee leen ko wax. bu leen toog pendant deux heures di wax Anita kese. wax leen ñeneen ñi. d' accord alors troisième waaw troisième actualité ak euh,